tey suñu sujet d'actualité dañuy waxtaanee ki nga xam ne moo di Matar Diop di député euh, Benno Bokk Yaakaar asan du dem moom nag daal dina génn ne Ousmane Sonko dafa am ab lobby bi nga xam ne dañ ko joxoon xaalis léegi nag ba Ousmane Sonko sax nee nañ daal dina bind ab lettre jébbal ko ki nga xam ne moo di président euh, Macky Sall daal di ko ci xamal ne dafa bëgg mu aaral ko njabootam ndax euh, lobby dañ ko commencé di ko menacé coow li bëri na nag Madiambal Diagne dugg na ci ki nga xam ne moo di Cheikh tamit génn na ne euh, xaalis sax tolloo na ci deux millions de dollars de un vingt millions de dollars su ma juumut waaw mu ngi noonu kon nag nee nañ nag bi coow li yëngatoo ni ñëpp nee nañ daal di ubbi ab enquête nañ dem xooli élément bi te dikkaat. Ousmane Sonko mi nga xam ne moom ngeen yaakaar je vais le nommer directement ministère bi mooy ministre problème il avait promis au lobby une au pouvoir je vais renégocier les ñu koy viiral xaalis bu dul jeex ay milliards la lekk ñooñu tey seen yaakaar tas xam nañ ni ne peut être il ne peut être il ne peut plus être candidat ces lobbies sont en train de menacer sa famille il a écrit une lettre directement au président de la république pour que président protège sa famille gémmiñ bu waxu dëgg waxi fen kon boobu gis nga tey li ngeen wax yëpp du waxi dëgg wax leen li xaalis bi bi bi sama waajooju wax xaalis bi ñu jëlee bitim réew ñëw yéen ñëpp Ousmane Sonko na mere xeex bi ngeen ko waxoon ne ngeen ko xeexal yéen a ko bàyyi mu wét ngeen di wut alal ci dondam ngeen wut xaalis ci ndoddam mu jëpp leen kenn ñëwul dem ci moom bàyyi leen caaxaan moom moom xaalis bi mu jëlee bitim réew yow fi bëgg koo lewal du lew balancement bi du lew nañ ko lew mais loolu mu wax dafa yomb trop c'est-à-dire non dafa yomb trop c'est-à-dire chaque jour mi ngi tweeté un député de la République du Sénégal député laa wax wax lu leer nañ nañ Matar Diop wax lu leer nañ wax ba ni sax président de la république Sonko bind na ko lettre di ñaan protection ndax liñ koy menacé ndax xaalis boobu député laa wax de waxe ko assemblée ñëpp dégg loolu ñëw après article boo xam ne le canard enchaîné la génn France canard enchaîné c'est le journal le plus informé de France le 7 juin tudd Sonko tudd ay xaalisu Qatar yi tudd lépp décrire ko point par point ñëpp dégg ko fii Sénégal kenn commentaire ko député bi ñëw waxaat loolu joxaat yeneen détail man ma ci yokkaat leneen xaalis bi Qatar la jógee 20 millions de dollars la. fan la jógee. Qatar. te 20 millions de dollars la. mais ñoom nañu demande nañu leeral. ñii di tuite chaque jour ay Alioune Tine ay ñoom Birahim Seck ay ñoom ñëpp nu mu tuddati euh, mu Ndiaye Cissé. nañu ni xaalis bii nañ ko leeral. sa veut pas dire que di di nit ko luubal wala dara c'est le minimum. waaye non yow journaliste la war nga ko def mais journaliste la mais chaque jour ñu bàyyi ko fi dem di leeral. nañu ni xaalis bi nañ ko leeral. Karane enchaîné wax na ko. un taxaw wax ko. Macky Sall dem dem du Dubaï. des sources informées di succédé wu jox ko détails yi dul jeex ci affaire bi. mais nañ ñi nañu leeral. mais lu tax ma mënuñu wax loolu. attends mais attends ba société civile nga. mu ngi noonu mi euh, ñoo ko jàngandoo est-ce que gëm nga ne affaire yi dëgg la. Didi man damay laajte xaalis bi nan la dafa dugg Sénégal bu dee ñoom lu ñu wax am na lu ñu def kon ñun ana suñu sécurité ana xaalis. fu mu jaar xaalis bu toll noonu vingt millions de dollars nan la xaalis bi jaar ba dugg biir Sénégal te ñun yëguñu ko léegi ñoom nee nañ tam bi ci bi ma ci gën a jaaxal Cheikh Yérim nee na man Cheikh Yérim nawloo ma ko ndax Cheikh Yérim bu ñu yenn journaliste yi ak ñi ma ko sañ a wax Cheikh Yérim Seck moo tax te Cheikh Yérim amul lu mu wax kenn xam nga ko sa wujj di sëlam doo set mm-hmm. Cheikh gémmiñ guy nàcc di wax yàmm Cheikh Yérim yàkkamti na bojjum Ousmane Sonko ba mu na ca paccax na ca saraax na ca liw pour wax ba géex ba ne saay muy moom ak di député ba man gëwuma leen naw ma leen député bi ba léegi mi ngi mi ngi insisté man déglu naa ko rek de presse nee na moom am na ay preuve mais pourquoi yow nga am ay preuve nga ñëw ci assemblée nationale devant tout le monde te génnewoo les preuves nañu génne preuve yi ay parce que wax na nee ay député moo ko wax député du waxoon ñaata député fi wax di nar di wax lu dëgg fii ci Sénégal suñu député yi te ñun ñoo leen fal ñun askan wi ñun suñu baat moo leen fa teg te ñoom teguñ fa teguñ fa seen bopp ñun ñoo leen fa teg te xamuñ ñun ñooy ñan comme léegi nag xaalis bi ñoom nee nañ am Cheikh Yérim xayma na ko ba xam ñaata la ba ne Qatar la jógee moom aussi na indi preuve mais xam nga ñii dañuy wax rek di sànni parce que di di ma wax la leen billahi wallahi wax dara du leen ci fekk bu doon ce que am na fitu ñëw fii nam di wax. waaye yow kii fitam romb na daa am rasukaay. war a mën a wax benn som boo xam ne da koo fixé ne som bi nii la. toll exactement yow arrêteel kii ak fitam romb na loolu. parce que li mu def kon bu fekkee ba mu jugee ci problème ba fay ba nekk dans le frigo ba mu génnee la waratul wax mais bu mu génnee dafa taxaw janook askan bi di wax gis nga Didé am na yéen dinaa la kilifa dafa am ki ne faa nga am man am na yenn kilifa yoo xam ne boo ko melee ci réew mi ñu gàkkal la wala ngay cuubu sa waxi daaw ak sa waxi ren bu ñu ko méngalee du doon benn man nawatuma la man Senghor te nee naa la fii bindal ndot li ma la wax ba jusqu'à la preuve du contraire muy député baa muy ñoom muy jambal jaañ jambal jaañ moom turam uti na borom moom day jambaatoo rek moom jambkat la moom moom di la wéykam noonu jambkattu tamaate doo lekk maafe pirawani jam moom foofu la bokk ah. moom day jamb rek na gën a jamb moom waaw kon nag di ba jusqu'à la preuve du contraire ñii du ñu indil preuve du ñu ne xaalis baa ngi ni beneen bi ci topp ñeneen euh, Sonko dafa bind Macky Sall lettre ne ko pour mu aaral ay njabootam nañ ñu woon lettre bi nañ ñu woon lan la xam nga bu yow bu ma la bindee lettre naa am sama signature mhm. dina def de la part de Ousmane Sonko nangam def signature mhm. su dee signature am dañ ko troqué moom dina xam bu dee lu mu bind la moom en tant que nit du ko wedd na génn wax ak ñun moom moom xam nga fi mu toll nii mënu mënu ko leen tontu. dëgg la ñii nag dañoo nam waxtaan te dañoo fay. te mhm. Sénégal daf ne tekk ne selaw élection yi mhm. des dans deux ou trois mois. Mhm. ñu war a am lu ñu entamé ñu war a focus ci loolu. ñu bëgg ñoo traumatiser indi ñu yeneen wax yoo xam ne ñun suñu yoon nekk ci bu am sama yoon nekk ci sa yoon nekk ci mu ñàkk am sama yoon nekk ci bu amee tamit nu xaalis dafa dugg Sénégal kon ñun suñu réew mii sàggan nañ nag. ba ba ba ba avocat Ousmane Sonko duggee ba France ba génn ba dugg Sénégal ñu njëguñ mm. mu dem ba Mali ñu ne eh, ba Mauritanie ñu ne leen mi ngi nii jàpp nañ ko te xale yi bu ñu duggee ci gaal gi ñi yegg ñi di dee te mënuñoo sécuriser ne bu kenn duggati ci gaal kon yaa problème yaa problème Assane noo sant yàlla rek wax ji moom diglu nañ ko mm-hmm. eh, man damaa jàppoon ni suñ député yi bu ñu leen falee ñu dem ensemble mm-hmm. dañ fay nekk di ñu wax dëgg waaye it di fa défendre loo xamante ni dëgg la mais ba ma déggee ñu ne boo fa toogee bu la neexee nga saaga nit boo jëlee kàddu bu la neexee saagaal nit bu la neexee fenalal nit. Mhm. bu la neexee yàqal deru nit. te loi moo la protégé. si laa ni kon waaw ma ne kon nag ensemble ndekete njariñ la bëriwul. moo tax ah ginnaaw foo taxaw bu neexee nga fenal nit kenn du man ci yow dara. bu la neexee nga sosal nit kenn du man ci yow dara te kenn du la kaay nga indi ay preuve te nee nañu boo génnee ensemble ba jël sa oto yi dem boo amee fit mën ngaa waxaat la nga waxoon boo ko waxaatee mën nañ laa jàpp mais boo taxawee foofa li nga wax bu la neexee nga fenal nit ku la neex mais nag boo nappee boo fenalee mën nañ laa yóbbu kon loi bi il faut ñu xoolaat ko ndax lu nit jamono yi fi mu toll nii dañoo war di wax loo xamante ni luy amal njariñ réew mi la mm-hmm. tey di wax loo xamante ni lépp lu ñu wax preuve da see war a am mm-hmm. loolu ñi nga xamante ni wax nañ ko Cheikh Yirim mi procureur war na ko mën a woo ndax moom moo ëpp information Matar Diop ndax moom xam na fa mu jógee xam na ñaata la. ginnaaw xam na fa mu jóge nag xam ñaata la procureur war na ko mën a woo mu ñëw ñu leeral ko ndax réew mi dañ ko war di bàyyee jaay. te ni ñu waxee nii bu fekkee ni kenn dañuy jaay réew mi te loolu duutuñu ko nangu kon nañ ko topp ba mu sës. bi ma dexaatee information yi ma jot a jox jot dégg naa ñaan dañoo yàq Ousmane Sonko mais xaalis mi ngi jëm si yoonu Mouride foofu lañ wax ni fa la jëm. si si yoonu Mouride la jëm. kooku nag maa ngi laasi appel seex yi nga xamante ni seen maam àndoon naag sëriñ bi. nañ jóg saytu loolu bu dee tuumaal nañ journal bi dañ see tudd yoonu murit wala ñoom Matar Diop ñii tudd si yoonu murit nañu dem pelente ji wala ñu wut ay cours yu baax lijjanti xaalis bi ñu ñu tuumaal yan xaalis la ak fu mu jógee ndax yoonu murit tëluñu caaxaan yi seen yoon nekku si kon nag bu fekkee dañuy tuumaal Ousmane Sonko nañ ko tuumaal te génn si yoonu murit ginnaaw Ousmane Sonko lañ nekkal moom lañ bëgg a défendre moom lañ bëgg a yàqal wala moom la ñuy tuumaal lu mu si mën di doon nañ ko wax ñu lijjanti ko te génn si yoonu murit yoonu murit moom moom ñu sosal nag maa ngi laa si après seex yi nu mu gën a gaawee nañ saytu même bu ñu ko munta gëstoon nañ wut ñu leen ko gëstul ba xam turu yoonu murit a ngi si wala nekku ci tarixa murit a ngi si wala nekku ci wala ab sëriñ bu bokk Tuubaa mi ngi ci wala nekku ci bu ko defee nag ñu dopp ñu teg ko ndax Matar Jóob Bawal la dëkk yaakaar naa luñ tuumaa sab sëriñ nga yëkkati ko ensemble bi teg ko loolu war a leer naññ naññ naññ naññ la mhm. léegi nag Ousmane Sonko moom mi ngi noonu am na ay avocat am na ñu koy défendre ñu ngi continuer di xool ba xam lii fan lay mujjee. jërëjëf d'ailleurs sax nee nañ ñu ci ubbi nañ ci ab enquête nañ ci ubbi enquête euh, oustaz. Hmm? noo ko gisee. <laughs> waaw di euh, Didi. Hmm. mel na ni yaakaar naa ni am na gis-gis boo xamante ni ñii door a judd sax mën nañ cee wax seen xalaat dafa am loo xam ne bu yàggee dafay nuuru soxor. mooy sama gis-gis mooy koo xam ni topp nga ko di ko dàq di ko dàq di ko dàq ba jàpp ko ngulu li nga am ñu tuddee ko prison nga jàpp ko dugal ko ci prison bi kooku jekki nga ko jekku nga ko waaye jekkali nga ko yaa ngi dégg moo xam moo def moo deful gis naa ni comme Sonko nit la koo xam ni nguur walla justice réew mi topp na ko topp ko topp ko ci nañu gisee ni ay erreur la yu ñu jàpp ni moom la def ba ñoom jàppal nañ ko seen boobu tëj nañ ko li ma gis mooy muudu li war nag mooy ñu géem a nag bàyyi ko ma ci seen loxo ma nga ci biir kaso ba beneen nag porte moo ci sotti moo ci génn mooy tuumaal nit ñaaraam su fekkente ni li Cheikh Yérim wax wala li député bi wax loo xam ne lu am la loolu état am na droit topp ko pour poursuivre ko xool lan moo ci yoon mais bam ba am bam bi am na lu mu wax nee na lii ñu wax nii du mujj fenn ci zéro lay mujj yaa ngi dégg bu bul loolu mu wax noonu moom gis-gisam la mais jàppal na ñu baree baree baree bare tamit loolu la ñuy wax tuuma nag sëñ Abdou Aziz Al Amin dalaan wax ne sëñ Babacar Si nee na alalu gor la tuuma as gor piir moodu bul jaxase bu la àdduna jaxase ba nit waxal la kàddu gu ñaaw ba nga tiit problème qui se pose mooy am na kàddu yoo xam ni rafetul vingt millions de dollars. Mm-hmm. bu fekkente ni Cheikh Yirim moom am na amoon pour li ma jaaxal mooy pour euh, pourquoi moom ba mu ko xamee waxu ko ba tey. ba période bii ñu koy door a wax xam nga loolu li muy tekki Sonko lu ñu mën ci jekkali ko rek nañ ko jekkali loolu nag baaxul ci ab jullit jullit doo def sa moromu jullit soo ko jekkoo rek nga dinaa jël paaka rendi ko ab jullit du def loolu de déedéet jekku jekkali di ngóora lay sa sadidu bi innama saridu man yamliku dahra nafsa indal ghadab bu ñuy wax jàmbaar pire mooy koo xamante ni dem na dem ba am doole am kàttan mën a jekki jekkali waaye nga jekki yërmande yërëm actuellement nii Ousmane Sonko jàpp nañ ana Ousmane Sonko mu ngi prison kon lu ñuy def ba mu génn prison ci loolu la ñu war a dox bu dee ay jul la ñu laa wax nag man ci cadre boobu laay waxee bu dee ay jul lañ ci cadre boobu laay waxee waaye nag jàpp nit di ko tuumaal guddi di ko tuumaal bëccëg am naag amul parce que des fois sax muudu émission Jommet bi am ko ci ñun ñi parce que ñun wax nekk luñu fi kenn baam bi mën na farak ku ko neex Baye Assane mën na farak ku ko neex man ma farak ku ma neex l'essentiel li ñu fi dajee ñun mooy li nga xam ni mooy dëgg te ñu gis ko te sénégalais yi war koo consommer li am solo ba am solo daal mooy Didi am na ci loo xam ne ñaaw na xam nga may lan as gor soo xam ni ma nga ci prison ba tëdd ñuy ñaan lu ko war a génne ay nit yëkkati ay kàddu di lii nii su fekkente ni bam bi ñoom lii ñu wax dara amu ci bu dee ñoom li ñu wax daraamu ci léegi boobaa Ousmane Sonko lan moo ko war moom Amadou defe naa am na droit kon moom porte plainte moom tam bu fekkee ñoom li ñu wax nii yow li nga wax baam bi loolu am na ci ñu topp dossier di topp dossier dem ba dernier moment ñu gis ni frousse est-ce que du moom am na droit kon tourner waat porter waat plainte plainte plainte yu bari yooyu Assane bu boobaa fan la ñuy jëmee dara am na loo xamante ni jëmelewul Sénégal kanam di di li jëmale Sénégal kanam moo ñu indi ay borom yi xam-xam xel mu sell wax loo xam ne day indi jàmm réew ci réew mi indi salaam ci réew mi soxna mbaa nga fay mbaa déggatuñ la mbaa sa journal jarul xëyal tudd Ousmane Sonko boo tuddee Ousmane Sonko daal sa aajo faju sa lépp ndox ci loolu lañ nekk parce que ñoo génn ndoor bu kii génnee wax kacatam génn wax ñoo ko tal Alaaji Modou est-ce que yaakaar nga ne lii nga xam ne Matar Diop génn na wax ko est-ce que loo xam ne du mujj fenn la wala dëgg la wala du dëgg tuumaal la wala du tuumaal parce que tam buñ ne 20 milliards de dollars tamit mu nekk loo xam ne presque mooy suñu xaalis 12 milliards 20 millions de dollars moo di suñu xaalis 12 mille kii milliards est-ce que tamit xaalis bu toll noonu nga koy jiiñ doomu aadama ku toll ni Ousmane Sonko ak ñi ko bëgg ni ñu bëree est-ce que loolu dina ci génnee noonu. bon xam nga di di fi toll nii c'est trop tôt pour nga wax dëgg la wala dëgg mais quand même ne. dafa bari manipulation ci affaire bi information bi Matar Diop génnewul xibaar bi ndax Matar Diop tollul fu muy amu amee xibaar yu toll noonu ku xam Matar Diop rek Matar Diop boo jëlee assemblée nationale daanaka da nga koy boole ci député yi nga xam ne moom ñoom kiro kuro mag yi ñoo bokk catégorie xam nga assemblée dafa bari catégorie nag assemblée dafa am ñoo xam ne ñii ay nit ñu réglé lañu <laughs> c'est-à-dire que mun nañ ñëw ak camp bu ñu mën a bokk ah, que ce mm-hmm. soit Benno que ce feneen mun nañ ñëw andi argument wax ko dem dafa ci am député yoo xam ne dañu leen di distingué ci seen xuloo maanaam ñoo di dàggasante mhm. Matar Diop ci la bokk Matar Diop la Koura Macky ak député Cheikh Seck bu parti socialiste mhm. ndax ñu dañuy suivre débat assemblée ñoom mhm. bu ñu ñëwee ci xuloo rek la ñuy nekk xasante amul solo amul njëriñ <laughs> mbir mi canard enchaîné moo ko bind boo dégloo yërim yërim mi ngi naan canard enchaîné di tagg canard enchaîné journal canard enchaîné di ko tagg canal enchaîné benn quotidien la comme ni Walfadjri nekk quotidien ni L'As vingt nekk quotidien bu nekk France la léegi nag ñoom bu ñuy wax wax bi nañ ko wax ni ko canal enchaîné bindee mais bu ñu ko manipuler dafa manipuler xam nga canal enchaîné benn article article bu ndaw mu wax ci Macky Sall juin la nag juin 2023 la article bi ñu ngi ci lan décembre juin la mu wax ci article bi Macky Sall dafa bëgg a def troisième mandat wax wax wax te dafa nekk nit koo xam ne dafay tëj ay opposants yooyu la article bu wax ci début bi. ñëw ba ci fin bi mu évoqué kaawu Ousmane Sonko. bi mu évoqué kaawu Ousmane Sonko mu ne Ousmane Sonko dañ ko arrêté dañ ko jàpp pour viole mu kenoon ay émeute am ñu ci faatu. mu ne Ousmane Sonko moom nee na bu demoon bay viole dina seet jigéen bu rafet mu violé ko mais du dem ci dàngin bu AVC xam Ousmane Sonko waxoon na loolu. bi mu waxee loolu ba pare nag journal bi cité. les frères musulmans mu ne Ousmane sonk bi ñu ko jàppee en juin deux mille vingt et un njiitu frères musulmans yi apporté woon na ko soutien ne maam Ousmane Sonko lay jàppale te mu ne frères musulmans yooyu noonu Qatar ñoo leen di financé loolu la wax mu ne nag xaalisu Qatar indoon na politique gu Sénégal ndax foofu lañu waroon na andi information bi nag mu ne ndax Ousmane Sonko jullit la nee na murid la journal bi loolu la wax jullit la. nee na murit la dafay dafa ànd ak ci ku rey nit ñu rey la mooy peine de mort dafa ne ñu criminaliser homosexualité mm-hmm. mu ne xaalis boobu indoon na Sénégal ndax dañ ko jox son ko pour mu convaincre murit yi mm-hmm. ñu jàppale ko ci xeex boobu mm-hmm. loolu la journal bi bind tegu ci leneen après mu ne nag benn diplomate marocain moo ko wax waaye léegi an accusation bi journal bi lii la bind xam nga ne xam nga fii vraiment réew mi dañu am ay ñoo xam ne dañu jàpp ne ñopp nit ñi xel wala ñoo gën a jàng nit ñi mën nañ jël information di ko manipuler fi ñu ko mën a tibbee ñu mun nañ ko fa tibbee xool ko xam li ñuy wax lii la journal bi mu nee na benn diplomate américain moo ko wax waa mais voilà léegi nag foofu la manipula foofu la manipulation bi duggee lii lañ wax lii la journal bi wax journal bi waxul ne nangam dafa ne benn diplomate marocain nee na xaalisu Qatar indoon na ne espace politique Sénégal pour Ousmane Sonko xaalis bi pour mu convaincre murid yi pour ñu jàppale ko ci criminaliser homosexualité ak xeex peine de mort Ousmane Sonko bokkul sàmm ji koy ñu xam Sénégal am na yoo xam ne bu ñu ko déggee wax bi ñuy dikkee kaw quoi duñu xam lan la. après ñu signé ko ki bi sax bindul turam JC rek la def JC. léegi nag Matar Diop li mu ci dolli mooy Ousmane Sonko bind na lettre président ne ko na ko protéger njabootam ndax lobby yooyu ñu ngi koy menacé. Mhm. Yërim ñoo ne vingt millions de dollars la ba pare nag. Yërim cité Matar Diop Matar Diop wax naa leen ni mu nekkee assemblée. Mhm. tey jii yaakaar naa Macky Sall bu amoon projet de loi bu sérieux du ko jaarale ci Matar Diop mhm. wax dëgg fa yàlla dafa am ñoo xam ne c'est que assemblée leen fal rek pour <laughs> ko opposants yi da nga leen di yeew ba ñu ne ngoddu nga mhm. jox mu porté ko léegi nag ñëw taxaw moom Yërim nee na la basé wu ci article boo xam ne ni mu ko démontré du noonu. mu andi député bi léegi nag xam nga problème mooy Sénégal wax dëgg fa yàlla ñu baal ma ci si ñi ma ko sañoo wax c'est-à-dire que suñu presse bi aussi des fois da dul jouer rôle bi mu war a jouer. parce que lii nii nekkul wax boo xam ne sax war nañu ko waxtaanee ci mbedd wax dëgg fa yàlla bu nekk dañu nekk réew mu séeréer rek xam nga Macky Sall euh, jiñ nañ ko fi Idriss sekk moo fi tuddoon ne Macky Sall na leeral 7 milliards Taïwan yi ba mu ko waxee 2009 la xam mu 2010. kenn waxu ci ba léegi déggoo ko ci wax nangam yaa ngi dégg saa à nag boo xoolee bu ñu jëmee ci élection ki nga xam ne jàpp nañ ne moo gën a sonal mooy sonal parti au pouvoir bi rek la ñuy jiiñ yu mel noonu. Mm-hmm. Ousmane Sonko jiiñoon nañ ko fi ak Tullow Oil élection 2019. Mm-hmm. amul effet ñu jiiñaat ko ko nii léegi nag pour man ma jambal dugg na ci nee na Birahim Seck nañ wax leen yéen ñi def société bi enquête leen. Mm-hmm. waaye ñëpp xam nañ ne ma jàmbal moom journaliste la te moom jege na président moom na enquête lettre bi nañ ko publier. nekk lu confidentiel lul benn benn citoyen moo bind président di ko demander sécurité pour aar njabootam ñu publier lettre bi Bambi léegi nag Ousmane Sonko porte plainte amul effet boo xoolee waa Pastef yi sax mhm. newuñ ci di ci di ci di ci di ci coow coow lu bari ndax lii ay waxi naq saxandang la gis nga wax boo bëggee mu am crédibilité boo koy yëkkati da koy jox koo xam ne kilifa gu mag la mais doo ko jël Matar Diop taxaw ci tribune bi taxu ko ma maanaam xuloo ba doyal daan daal di commencé war ngeen wax Ousmane Sonko nga xam ne nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam lii daal Didi pour man. Mhm. loolu daal jarul polémique jarul coow coow lu bari. information bu wérut la journal bi ko bind bi ñu wax canal enchaîné bindeewu ko ni ñu ko waxee ñemewu ko sax signé ñemewu ko signé ñemewu ko assumé. Mhm. benn diplomate marocain moo ko wax ban diplomate la ñaata diplomate marocain ñoo am. ku mën a tudd frère musulman neen soutenir Ousmane Sonko neel Oustaz Souleymane Diaw diplomate marocain nee na. Mhm. waaye un diplomate marocain. wax dëgg bu ñu ko sànnee ci mbedd bi nag wax dëgg fa yàlla mhm. Mhm. jarul nekk ñun Sénégal jarul sax nekk nit ñi nañu concentré wu ci essentiel dëkk bi mooy mhm. dëkk bi métti na nañ ñu dimbale nit ñi xam nga maa ngi gis président Macky Sall photographe dafa gaañu tuité na li dee ci doomu Sénégal photographe du xam nga dee moom kenn mënu oh. sax ki de yàlla na ko yàlla kii mënu ma xama sax lu ko ñaan ndax dañuy wax ci kii ñu ngi koy ñu ngi masoo fa même Macky Sall def na tweet di naqarlu mais Macky Sall dañ ko war a fàttali ne ko suñuy milliers doom ñoo dee ci géej gi te gisuñ ko mu def tweet di ko naqaru hmm. loolu mooy essentiel bi mais pas ay diw nee na diw nee diw nee na macha allah